Hmm? ma génn. donc da ngay mit mit ko. fii da ko mit da ngay il faut après am ko ma vérifier.

li may wax dama ko bëgg a wax euh, sénégalais yëpp seede ma parce que li may wax c'est des informations de première main yéen yéen ay gérer sécurité foofu ma wax leen ko recruter ay ay de nervis nervis yooyu nag ñi ngi fépp taxaw ñu ngi ci BDN bi ña nga Parcelles ñenn ñi nañ nañu dañuy ñëw attaqué sama kër ñuy jël nag Sénégalais yëpp à témoin parce que loolu Macky Sall ci boppam Macky ci boppam ci liñ ñu wax ci information ak soxnaam ak doomam ak benn général bu nekk pare ñooy coordonner directement ak nervi yooyu di leen jox ay instruction bu leen nag Macky Sall guerre civile la bëgg ci réew mi du am waaye. lii mu nekkee bu ko continuer liy tooy ci moom lay jóge loolu daal laa bëggoon a wax jël Sénégalais à témoin je le dis en français également pour la communauté internationale et dire aux gens que Macky a planifié avec sa famille, son épouse, son fils, d'après les informations qu'on nous a remises et qui sont des informations de première main. ils ont recruté des centaines de nervis armés pour euh, s'attaquer physiquement à nous, s'attaquer à notre domicile, s'attaquer à notre convoi et saboter la manifestation d'aujourd'hui. Et l'autre objectif de ces nervis, c'est de se mêler aux manifestants pour ensuite commettre des exactions et des forfaitures qu'on pourrait imputer à la coalition Yewwi Askan Wi je tiens à informer l'opinion nationale et internationale ce que je dis les forces de défense de sécurité sont informées elles le savent très bien mais elles ont reçu l'instruction de ne pas sévir contre ces milices de Macky Sall si l'objectif de Macky c'est de créer le chaos dans le pays de créer une guerre civile je dis à monsieur Macky Sall que c'est voué à l'échec il ne peut pas mettre les Sénégalais les uns contre les autres. Mais lui et son groupuscule de personnes, parce que tous ces nervis-là, nous savons qui ils sont, nous savons qui les recrutent, nous savons où ils habitent, nous avons des audios, nous avons des vidéos, nous savons qui ils sont. Et ne représentent par rapport à ces milliers, voire ces millions de jeunes qui sont prêts et déterminés. Et donc je dis qu'il n'y aura pas de guerre civile au Sénégal, mais Macky Sall de finir très son second et dernier